asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yéen mbokk yi nga xam ne yéen ngi bàyyi xel seen web TV Al Azhar Touba ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen balaq di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu boole ñu ñun ñëpp jéggal suñuy bàkkaar te xiir ñu ci njub te saxal ñu ci tey ñu ngi fii ci euh, village yu Jannatul Mawa euh, dend ak euh, Serigne Modou Fall mi nga xam ne nii moom mooy chef de village yu Jannatul Mawa ak Serigne Khalil Mbacke mi nga xam ne nii Jannatul Mahwa la dëkk Serigne Khalil nag amoon initiative bu am solo te mooy jéem a solutionner problème mu adresse ci Touba comme xam ngeen ne Serigne xalil jamono yu nekk da ngeen koy gis muy indi ay solution yu bari ci wàllu éducation euh, waaye itam noonu lay indee ay solution yu bari ci wàllu euh, dëkk bi ba tax na mu amoon xalaat rafet boo xam ne nii mooy euh, ini initier benn. tableau boo xam ne nii dafay indiquer mbedd loolu nag gisee naa ne amagul Touba loolu nag ab jéego la boo rafet boo xam ne nii ni xaj na dina ñëw ci moom léegi laaj fan la ko xalaat bi euh, euh, jóge ak lum ci namm waaye rek bi mu noppee ba waxtaan ceeg Serigne Modou Fall mi nga xam ne nii moom moo yore. Euh, chef de village su mooy chef de village su Jannatul Mawa moom itam ko ñu ngi nii moo teew nii ci sama loxo ndeyjoor kon Serigne Modou euh, ñu ngi lay nuyu di la ziar di la laaj sa xalaat ci xalaatu sëriñ Khalil bu rafet bi yow noo ko gisee. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Serigne Khalil Mbacké maa ngi lay ziar di la nuyu di ziar yaa suñu Lamine Touré mii di sa mbokk sa doom lay ngeen seq lépp ci teewaay bi ma fi teew tey. Jantumaa moom dëkkub Serigne Saliou Serigne Cheikh Mbacke mi mooy jëwriñ sëñ Saliou kon lépp ci loxo la man nag maay ndawal mi fi bàyyi di ma xool di ma diglulu lu fi xew itam moo di bi sëñ Xalil xalaatee xalaat bi ñu wax ma gën te xam lépp ci ab defar la jëm ak lu baax rek la moo tax ma ne ko loolu da mën naa nekk daay fii ñu ko war a def yàqu fi lenn du fi gàllankoor dara te itam am na njariñ ci kanam ak la mu ko xalaat loolu moo tax bi ma ko waxee itam na xam lépp ci ab defar la jëm ak bëgg lu baax ma xam lépp sëñ bi moom lu baax rek la bëgg ndax sëriñ Cheikh mi nga lu baax rek ak taaral Touba ak lu jëmal Touba rek ko jox mm-hmm. te lii lépp mm-hmm. liggéey sëriñ Saliou it la bokk ndax jannatu moom sëñ Saliou ko fonkoon fonkoon boppam boo xam ne mm-hmm. waxu ko sax ñuy dégg ndax sëñ mbiram mépp baatin waaye ku jaxasoom da nga xam ne jannatu moom dafa ma càq ci sëriñ Saliou muy maamam dax kan war ko taxaw ci weer yëpp te comme ni ko sëñ Lamine Touré waxee rek dëgër di ko rafetlu hmm. rafetlu googu na mooy sama taxawaay fii comme man la ñuy dénk man lii rafetlu naa mun ma ma sooy nga teew fa ba nga xam ne hmm. fii defar rek lañ jublu te defar moom ñëpp man te war nañ ca mën a hmm. moo tax ma ñëw teew fii tey ci yëkkati xam ni li may wax raxalaat naa ni moom lépp doon na mën a tegu si yoon ba tax na loolu mooy sama jataay fii tey ak ñi ma àndal ci quartier bi nga xam ne Bada Gueye meeg maam Góor Jaw moo diwul fen ñoom laa yebal lu jël si bari ñu ànd ko lijjanti ñoom laa àndul taxaw loolu jëfe ngeen ndigal rek ma ñu dugal ndax sëñ Xalil la ma jox ndigal ndigal sëñ moom benn ndigal rek la mm-hmm. te lépp defar la jëm ak lu baax mm-hmm. rafetlu nañu ko loolu na nga koy ñaan daal li mu ci nisar li mu ci xalaat yàlla na ko a kawe njortam ci ndam tey jii ak bu liggéey lii ak la mu tàmbaleegul te liggéey sëñ Tuubaa dong tax daal yàlla na ko ci yàlla fekk ak ndimbalam ak ndamam mm-hmm. ci barke Cheikh Saliou Mbacke sunu yaakaar jërëjëf Serigne Modou Fall ci kàddu yu rafet yooyu nga xam ne andi nga ko euh, di leen fàttali rek ne quartier euh, village yu Jannatul Ma'wa ñi ngeen koy gisee li muy rëy rëy ak ni ko nit ñi fonk ba mu ba mu fi nekk moom jëmmam ji booba daanaka mën nañ ne kenn sax bëggu fee dëkk ba tey ji mu mel nii kon maanaam joué na rôle bu ama am solo ci loolu nga xam ne dénk dénk nañ ko ko kon ñu ngi lay ñaan suñu borom moo sàmm la te ba nga gën a mën a wéyal li nga xam ne dénk na la ko euh, kon sëñ Khalil ñu ñëw ci yow <coughs> initiative bii nga jël yow yàgg nañoo gis ngay jël ay initiative yu bari jëm ci éducation waaye nag tey dañoo gis nga jël initiative boo xam ne daa ñëw ci dëkk bi lu mel ne solutionner problème mu quartier parce que léegi jàpp naa ne bu fi amee at nii boo jëlee eh, taxi boo ko ne yóbbu ma Tali Ndiouga ànd àngal ma Fatihul Bichri mën ngaa bañ a waxateeg moom benn baat day ñëw rek ba wàcc fii boo ko tëg nga naa ko jàddal ne jàddal ne jàddal ne muy jóom loolu defe naa lu am solo la yow xalaat bi nan la la dikkale ak loo ci euh, jërëjëf sëriñ Lamine ñoo ngi lay nuyu di nuyu sëriñ Modou Fall mi nga xam ne mooy chef de quartier bi. tur day jeexital ci nit waaye di jeexital ci ab dëkk itam loo tudde aw tur rek tur woo da cee jeexital ndax fi ne boo doon ñiy yëngu ci lasraar ak kii kuy kuy def dara ci nit da ngay jël turam ak tur ndayam hmm. donte gisoo ko it boo defee mu jeexital ci loolu. Hmm. kon tur day jeexital ci ci ci dëkk. Hmm. ma gis ne kon sëñ bi tur yi xasaayit yi mu tànnoon di ko tuddee xasaayit yi. dëkk bi itam lu ci ne da ko wutaloon ay tur daaru Rahman. Mm-hmm. daaru Minam. Mm-hmm. daarul Mannaan. Mm-hmm. nga xam ne ay tur yi boppam lay yatt yoo xam ne moom rek moo ko mosaam nit ñi it buy tudd doom yi day wut ay tur boppam yoo xam ne da koy lënkale ak turi yi. xasaayit yooyu nga xam ne. wala barab yooyu nga xam ne moom la tudd. yaa ngi dégg Abdul Khoudous. Abdou Rahman. dégg nga Abdou Rahim. yooyu yëpp tur la yoo xam ne daf ko daan joxe. kon bu demee ba wutal dëkk bi aw tur. li ñu mën a tuddee ay karce muy dëkk yu mag yi ci biir. Mhm. mu wutaloon ko ay tur. Mhm. mbedd yi kon war naa am ay tur. Mhm. nga xam ne day loolu day day leen lu am solo loo xam ne. ni nga ko waxee léegi day dimbali ki nga xam ne mooy ñëw di laajte fenn wala mu bëgg dem barab sàngam. loolu it fi ne bu ñu demoon ba jëmmi jamono. ba dëkk bi amoon satellite. nga xam ne léegi. yaakaar naa ñi génn xam nañ ko li ñu wax GPS nga xam ne da ngay jël da nga koy def ci sa oto nii rek réglé ne ko barab sàngam moo xam ne moom moo lay guider ba nga àgg foofu te jamono day dox loolu mën naa dem ba am su fekkonte ne dem nañ ba euh, mbedd yëpp nag fekk tuddi nañ ko turi xasaayit loolu day doon lu am solo loo xam ne mooy doon lii wéy moo tax man fii ma dëkk nii quartier bi ma nekk nii rek ak ak barab mbedd mi nii ma xalaat ci loolu pour bu ëllëg si biir ñeneen ñu gisaat xalaat bu rafet boobu xalaat bu rafetlu ko ñu euh, euh, jël ko noonu Euh, kamu baadaratin boo xam ne léegi. day doon luy tasaaroo. loolu nag moo tax ma waxtaan ci sëñ Moudou Fall mi nga xam ne. moo fi nekk chef de quartier. te di sama digg ak sëñ Cheikh moo fi dox. lu ma fi doxal moom laay wax mu wax ko ko. lii itam damaa gis ne lu rafet la loo xam ne. wax naa ko ne ko bu demee nag ko leerale noonu lépp ci ndigalam rek lañ koy defee ak ci euh, kii boppam. ba tax na kon lool rek lañ ci jublu. xasaa xasaayiti sëñ bi daal ni ko wutalee ay tur yi tasaaroo ci biir biir dëkk bi tam ba nga xam ne loola day doon lu wéy fépp am am mbeddum ma faatimal bisri mbeddum nangam nangam ndax boo demee ci réew tubaab bi noonu rek noonu noonu lañ ko def rek ba moo gis am na aw tur wuñ ko tuddal tuddal woo xam ne maam yi fa nekkoon ñoo ko sosoon ba fi ne nii nga xam ne boo taxi boo jël ne ko yóbbu ma mbedd sàngam du laajte day dem bàgg foofu rek lii it buñ demee ba jëmmi jamono mën naa demee noonu fekk nag li nga xam ne mooy tur yu xasaay yi sëñ bi génne mm-hmm. doon loo xam ne mooy lii tasaaroo ci dëkk bi mm-hmm. lool mooy xalaat bi nga xam ne moom lañ ci amal rek ñu ngi lay yëbbante kon ci sëñ bi seex loolu nga larale ko noonu te xam ne loolu lépp itam loolu rek liñ in uridu ilal islaam astataab mm-hmm. waaxiru daxwaana alhamdulillahi rabbil alamin euh, jërëjëf sëñ Xalil ci xalaat bu rafet boobu kon xam nañ ne jublu gi rek mooy xasiiday Sëriñ Tuubaa yi ñu wutal ko ay tur yi ñu tudde ko ay mbedd ñaareel ba itam mooy solutionner problème mu adresse tudd nga ko sax euh, problème mu GPS yaakaar naa ne xaj na yëgoo ko woon mais am na ku defar GPS d'abord. am na ba pare ku sa ku sant Diop ku ko def ci Sénégal gépp kon problème mu adresse moo tee nga mën a euh, composé si ci sa oto jógee sa kër mu andi la ba ci adresse bi nga jëm problème mu adresse boobu nag nga bëgg a solutionné lu ama amam solo la loo xam ne nii ñu ngi ñaan suñu borom ñeneen ñi nga xam ne nii ñoo ñuy seetaan te am yeneen initiative ci Touba itam nañ ñëw ci responsable yi waxtaan ceeg ñoom ci initiative boobu ñu jox leen ci ndigal ñu def ko ndax Touba nekkul système boo xam ne nii dañuy bàyyee lépp ne gouvernement bi moo ko yore wala dañuy bay lépp ne sëriñ bee ko yore képp koo xam ne am nga xalaat bu rafet demal ci kañ dénk foofa nga ne ko man xalaat bii laa amee nii laa ko bëgg a defee mu xool ko càmbar ko bu ko juboo mu mu dëppoo ci ak yow ndax Touba noonu lay doxee ci jamono jii xaj na xaj na dina soppi ko waaye jamono jii noonu lay doxee kon ku am benn mu mubaadara bu rafet rek moo xam ci wàllu santé la moo xam ci wàllu éducation la moo xam ci wàllu assainissement la moo xam ci wàllu gum doon rek mën nga jël initiative yooyu dem waxtaan teeg ñi nga ko war a waxtaanal nga def ko ndax loolu mooy tax suñu dëkk bii di Touba développé ci wàllu àdduna waaye itam développé ci wàllu àllaaxira li taxoon sëñ bi bind ko sëñ bi li taxoon mu sanc Touba du mooy loolu lu dut ñaar yi àdduna ak àllaaxira ndax ñoom ñaar kenn du leen xaajale ñoo fi nekk li taxoon mu sanc ko mooy jàng ak jaamu yàlla waaye itam li nga xam ne ak doomu aadama mënu ko ñàkk ci ak dundam itam loolu tam am fi loolu nag ku nekk kum mën a doon rek boo ci amee ak xalaat waxtaan ceeg ñi nga ci war a waxtaanal kon Serigne Modou ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm su fekkee da cee bëgg a dolli leneen itam ma jox Serigne Modou Fall mu am yeneen kàddu yoo xam ne dina ko ci yokk bisimilah. bisimilah yokk gi day moom mooy sëñ Xalil xalaat bi mu jël rek Serigne Saliou jëkkoon na ko xalaat. ndax tur yi nga dégg ñu ñu ko wax bokk tolobaar yi sëñ bi joxe woon ndigal boole ma sëñ Modou ma mun ñang ni ma naa wut ay tur yoo ndax sañcee rek daw tur sañ Saliou rek lañ boo moom la mun sañcee rek daw tur léegi dañu bëgg wut ay tur yoo nga xam ne dafay dëpp ak Touba mm-hmm. te bokk te tur fi amoon mm-hmm. sëñ Modou Mane ñang ma ngi may dégg mm-hmm. dama jël xal yi bindoo ko noonu fii mm-hmm. bind ko mooy carte yi nga dégg bokk sama baar mm-hmm. ñu wutaloon koy table séddale ko koñ mais sama fa table pour leeral sëñ moom lu mu jubloon mooy Touba far barab bu xam ko fa si jëm comme ko waxee xam fa nga jëm fu mu waaye ma nga sañcee rek ma nga sañcee dañu doom xalaat te dafa raw tur yu wér ñu nga xam ne des ko mën a mm-hmm. loolu mooy sa xalaat bi loolu lay rafet na suñu xalaatoo daan bopp nu ma joxoon dégg joxoon ndigal bu yàgg ci loolu moo mm-hmm. loolu rek mooy li ci am kon lu am solo la lu buñ demee ba ca kanam daañu xam ne mu jëriñ xëy na xamaguñ waaye buñ demee ab diir ci kanam daañu xam ni mu jëriñ sama kàddu yi ci ndigal rek laa ko fas yéene rek ndax aw ma baat dañ may xool di ma déglu rek waaye lu rafet lu mel ni xam naa ne ragal naa ne yaakaar lu rafet moom sëñ bi nga xam ne moom mooy liggéey lu rafet ak lu defar Touba ak lu jëmale kanam Touba. defe naa dara du ko ca am lu muy rafetlu loolu tax ma mën a taxaw fii di wax waaye kon lu ma ci xalaat. jërëjëf waaw jërëjëf. jërëjëf sëriñ moodu jërëjëf sëriñ Khalil euh, yéen mbokk yi nga xam ne nii euh, yéen ngi ñu doon seetaan ci àdduna bi yëpp li tax tam ñu koy gën a taxaw mooy ñi site bi ñi ëpp ñu koy seetaan ñi ngi Amérique wala ak Europe te bëgg nañ di xam li xew ci Touba bëgg nañ tam apporter seen solution ci biir Touba ndax murid yi dañoo tasaaroo fépp moo tax yu mel ni ñu leen koy baax di leen ko tasaareel kon tableau bi moo nekk ni ñu bind ci mbeddu Mafatihul Bichri ak avenue Mafatihul Bichri ci ci ah def benn flèche mu jëm ci mbedd mi lool tam initiative bu am solo la kon ñu ngi leen di dig daje ba beneen yoon incha allah wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi